ndax yonent bi moo ne woon ku gis lu lu lu demeewut noona su ko mënee dindi na ko dindi su ko mënta dindi na ca wax waaye ku dem kër buur su su ko su ko doomam jigéen rombee doomam jigéen joo xam ne tubaab ba ko jur mu romb ko sol loo xam ne bu dara war a dee du ko mën a for bu ne ko kii sama fii ko faw nga jox ko loxo moom loo bañ bañ jox loxo jigéen faw danga naan rus na ko mën ma ko ñàkk jox loxo te danga ko xoolee tam nag ndax kenn ñi mutu ku toll noonu nga di ko nuyu du mooy ñetteel bi mooy euh, nga ne fa bay dem te loolaa ci yées muy wax bi wax ji mu di ko ñaanal jàmm naa ko li nga bëgg ci réew mi ak li nga bëgg ci nangam ji ak li nga bëgg ci nangam ji te xamoo lu mu ci bëgg mën naa am sax la mu ci bëgg yow bu amee bu wutul da ci doxee saay far Sidna Ali men na Sidna Ali mu siiw mi doon na dénk Ammar ne ko loolu lépp maa ngi jëm si ci la waraloon xaalul yarkan <coughs> Sidna Ali kam doon dénk Ammar ibn Yaas ne ko àdduna bu mu la tax ñaaw adduna bu la tax a ñaaw mukk ndax juróom-benn yëf rek moo fi nekk àdduna sëpp juróom-benn yëf dong la lu ñuy lekk ak di ko naan lu ñuy sol lu ñuy fóon ak lu ñuy ñuy war ak lu ñuy denk lu ñuy de ku ñuy denc muy lekk ak naan ak mbubb ak laj kolañ ak wata ak soxna ne ko bu dee lekk la lem a ci gën a neex lem a ci gën a neex ndax lem ba muy xuloo ak suukar ñu dem kër àttekat ba ba bañ ne lem waxal dana de kuñ kalaame kay ka kalaame kay moo jëkk a wax suukar daa di wax ay qualitéem ni mel nga xam ne yu yu bare bari wax ba ne wax ba wax yu bari xaadi ne lem loo xam ci lii sukar wax mu ne li ci xam dal bariwul mooy su fekkee daa neex na wax lem saf na wax lim saf rek euh, lem na wax li sukar na wax lim saf rek lema ci dàq te sidna li nee na lem googu wala contraire wala safaan bi bokk safaan safaan bi daal la bëggoon a wax waaye du ma du ma ci desuwaat dama juum dama juum alhamdulilah bi ma bi ma demee koy juum nee na ko lem moo ci dàq te lem eh, yamb moo koy defar te fa muy jóge ci moom bu dee ci kër yii la kenn kenn du fa jëm kon amul solo kon kon du dara nekkoon naan gi ci dàq mooy ndox te ndox nit ñi ak picc yi kilifay diine kilifay adduna ñoo ci yem ak dof yeeg ñépp ñoo ci yem euh, ku ci ku ci xëy ku ci ku ci bàyyi ndox rek musiba dal ko kon moom itam ginnaaw ñépp a ci yem amul sol jër jër sa ñaaw bu dee lu sol xanaa bu dee jamono ji mooy gañi walla walla walla gis naar te yooyu am na ci yoo xam ne ci ay sax lañ ko jëlee ñii ay kawari xar yi yii di ko jëlee ci kenn xamut waaw yoo xam ne nit bëgg wala bëgg maanaam nit jàpp na du moroomam sax te da koy waajal di tiitaru kon jëru ko kon mbubb mu rafet jaay jërta jaay ne ko li gën a am solo ci laj ko lañ laj ko lañ jamuy jamuy xëppoo fu mu jaaru ñu ne waa ji waa ji ci ci sii bi la bokk nee na mooy misk xam naa jamono yooya te nee na misk dara ci deret lañ koy defaree deret daan ne ko li gën a bu dee lekk naan solu xeeñoo lañ ko lañ dugg ci oto bi dugg ci oto dugg ci dugg ci oto mooy fas la waxoon waaye léegi oto xew daan ne ko bu dee fas la moo gën ci lu ñuy war te fas kenn xamut ñaata góor yàlla lañ rey ci kaw fas lañ ñoo war fas ñu jam leen ñu daanoo daanoo ca ko fas ba sedd guy bu dee jamono jii la daanaka ku faatu rek ku mu mën a doon ñu bari ñu bari bokk xanaa ku faatoo ci armeel ya ku faatoo ci armeel doon kenn du ko dugal ci dara waaye ñi ëpp ci ñi faatu day ak ku mu mën a doon ñaaree ci oto lañ koy dugal ci ginnaaw oto lañ koy dugal bu fekkee mu yoroon ay 4x4 itam duñ ko dugal ci 4 x yi waaye ci mbàkke Tuuba yi lañ koy dugal teg ko ci fi ñu teg tànk yi mu ne ko kon loolu tam jër sa jaay jër sa jaayee maanaa daan ne ko li gën a am solo ci liñ ciy denc nag mooy jigéen xam nga jigéen juy denc jigéen am na léegi góor guy denc góor am waaye nee na ko jigéen daal góor daal jigéen lay denc jigéen moomu ñuy denc nag gis nga ku ne xam na ni jigéen di jaar ba am moom itam du dara comme laal nga dem raxasu wala bala nga jul dem raxasi ko kon lu bare la waaye foofu dal mën naa fay yam ci ne Sëñ tegoon na tànkam fu dëgër ndax ba muy tàmbalee jàngale tàmbalee lu mu gis fas bu ci àggee bu def ko jotee mu def ko tax na ba jataay boobee tasee mag ña ñoom ñépp def ñaari xaaj xaaj bi naan daa yambati xaaj bi naan daa xamut li mu bëgg waaye bàyyi leen ko rek dana ko masa dana masa walbatiku yu bari xew ca ba suñ mu lemu Jóob nee na am na leetar boo xam ne ba ko ko xaadima jaxate bindee tontu lag ku ñuy wax aadama sàll la ko suñ tuwaa jox ne ko demal yët ko ko demal yët ko euh, xaati lam ci bind mooy daf ko daf ko ne ku ñuy wax Muhammad ibnu Salamata nee na boroom xam-xam buy dem ci kër buur mi ngi mel ne weñ wa dal ci kaw ay dem àll ba ko xaari jàngee daf ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Lat Joor ne ko lu mu doon mun ne ko mënu ko wax mu ne ko lu ñu mënta wax am na te di ko bind mu ne ko ah dane dane daal nangam daal di koy liyaar mu ne ko waaye waxal rek mu wax ko ko mu ne ko ah loolu ko yow koy waxula dara man mii kay la wax ndax yow yoway weñ wi man may loola ne lu ciy paxe kii de fawuñ jóg ci moom mel ni buus mu ne mu woo waa waa FBI wala waa FBI ne kii fawuñ jóg ci moom agent FBI day buy wax day toog ne bu dee ab étranger la CIA toog na nga xam ne ku ci ku ci nekk rek waaw loolu tam jërëmu di ci balañ ma balañ maa woo fenn la Joor na ko lu ciy pexe nañ ko sakkal pexe maa ngi la ci laaj xalaat nag mu ne ko li tax may tudd seen tur nag nee nañ taarix moom du wax lu dëgg mukk te du jéggale waaw lu fay waxoon des na dañ nañ ko nettali mu ne ko xam naa ne ku songoo moom ne boo ko daanee danga am woy woo xam ne tu fay mukk waaye comme daaneel moom dootoo jóg mukk te nees di fexe ba daan ko dana ma jaaxal Lat ne ko teñ ko def nenn kon mu ne ko ah ndax Lat xam na songoo xam na songoo moom am na fu mu songoo daan fa waaye am na fu mu songoo itam daan fa mbokki sëñ bi ma seenoon léegi bi ñuy wax dañ naan eh, dégg nga mu daan mu xare barab sàngam daan ko waaye su fekkee fu ñu ko daan la daan mu xare barab sàngam rek yam ci ne ko te ñoo def naan na kon mun naa mu ne ko def ko ni ab jànj wolof nee na dégg ab jànj du tee góob bañ a ji ba ak ci jànj yi wër ko jàll mu ne ko ah loolu mu laa ci xam de léegi nag <clears throat> ay way yu ay bind yu bare bari rot na ci eh, li tax indaaliwuma ko dama ci dama ci dama dama xool téere yu bare bari gisuma ñu bind ko ci ne diw moo wax li diw moo wax li waaye am am na am na yow a ca am waaye daal li am solo mooy tontu tontu li Sëñ tontu moom moo ñu fi tax a toog Sëñ nag daal di jël xalimam xam ne àdduna day dox te yow a fa mu àgg du mën a àgg fa mu jël xalima daal di bind euh, bay yooyu sëñ bi wax léegi xaw loolu yarkan ba mu àgg ci lay jëm si léegi daal di koy waye nag ci wayen woo xam ne ñiy seetlu xaside Sëriñ Tuubaa yi dañ ko ci jàngat ci boxoor yi muy jëfandikoo ci way yi xawma wér na am déet waaye am nañu am nañu ci seetlu daal nga xam ne la muy wax daf koy way ca baxaru sàngam bi teg ba euh, masalan bu dee bu dee wax nangam bu jëfandikoo baxaru kaamil nangam la ci jublu bu dee baxarul basit bi itam nga xam ne waxam ngi du ci dallu gannaaw mukk du ci dellu gannaaw basit maanaam tànk tànk boo xam am na ñoo xam ne mën nañoo tàll seen tànk waaye mënuñu ko bank am na am na am na ñoo xam ne am na lu leen dal loo xam ne seen tànk du bank moo ko day tàll rek bu ñu julli sax bu ñu rukkooyee ba jógee ci dañu koy tàll mu ne nit ñi ngi may woo naa ma kaay e, juboo ak buur yi te alxuraan moo ne woon la tarkanu ila alladina zalamu mooy dem ba dé fexe ba déggoo ak buur fexe ba déggoo ak buur maanaam bàyyi yoon wi nga jaaroon bàyyi yoon wi nga jaaroon euh, nga xam ne buur daa jëm sowu nga jëm penku mu mel ne li ñuy wax autoroute nga dem ba mu yàgg nga bàyyi yoon wi nga jaaroon yow ndax bëgg jubóo moom waññi ko topp ci ginnaaw mu ne loolu lañ koy woo mu nekk kaay def ko kaay dem kër buur ndax soo fa demee lu nekk nga fa loo bëgg am xanaa ba mu des lu baax loo bëgg rek am na fa ba mu des lu baax Sëñ Tuubaa ne leen eh, dégg naa ñu naan makkay may sa tend may sa tend may sa tend joor nee na nee nañ makkaam jam daan woote nit ñi dafa aji makk lam lañ fa doon tere mooy ku daanu ci teen bi kepp daanu ci teen dong lañ fay tere waaye ku la soob boo ko xoolee néexul sax mën nga ko rey dara du la ci fekk ndax makka ji moo ko laaj ak wuuteeg makka yàlla ji nga xam dañ ne la soo armalee boo xasanoo ba rey dara sax doo doo xasanu benn xasano bi sax bay lor dara ak wuuteeg makka yàlla ji kon ne ko lépp nga fa dara manqué wu fa mu ne leen man dal xaar leen ma far jàpp ci yàlla rek ndax yàlla doy naa te man doyloo naa ko bari na yu nit ñi doyloo te doyut bari na nit yu nit ñi doyloo lool te doyut mën na see wax lu bari waaye euh, bari na ci mën a xam wala boog ñi ñëw sama gannaaw danañ danañ ci danañ ci ak si ñoom dan na leen awma soxla ci kër buur gu rafet wala bernde yu reex yu neex yu fa am wala naataange ju fa nekk waaye su ma amee soxla dal senn la mooy na ma fexee ba xam-xam yaatu diina sax fi man man daal fi loolu laa jóg jëm fi mu ne li ko tàmbalee jataay bii daal ca loolu laa jóg jëm fi mu ne te itam xéewal ya fa am ak kaaraange ga fa am nga xam ne balaa kenn dugg dangay jaar ci ay chaque point yu bari door a àgg ci poste police bi nee na euh, kaaraange googu yàlla laa koy ñaan mu aar ko ndax euh, fii fi Touba euh, sëñ Ndam Mbar sëñ Ndam Mbar mooy ma mooy bàyyi sàmm sam sambusu men oustaz sambusu tëdd na fii ci Touba ci bi ñu so bi ko suñu fàllu soog a indi kër gi jàkkaarloo kër suñ Alaaji Mor Doj foofu la dëkkoon suñ suñ busu suñ busu bi xam na ko ba mu fa dëkkee yàlla dogal mu tëdd tëdd jot mu tëdd ab oto jóge ca àll ba ab rapide ab rapide rapide super ko fi jëlee daal di daaneel sàkketu kër gi maam daaneel sàkketu kër gi ñëw fekk ko ci ñëw dal ci kaw néeg bi suñu dam nekk muul yaag seng yaag lépp daanu ci kawam ña doon ña doon ña ko doon wallu si dal ñoo jóg mu ne waaw lii lu mu doon lu xew fi te xanaa dara gënta wóor guddi jot ndax nee nañu reer tëdd mooy wallu reer reer reer dox ren génn mu dugg ci këram tëj ko dugg ci néegam tëj ko sangoo màcc xanaa loolu dara gën a ko